dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaaru yu abu te leen ngir dara bañ leen raw maa ngi leen di nuyu mbokk internet info 221 dañu daal di wéy ak yéen ci xibaar yi rek dem ci jour vérité digg bi war a am tey nit ki tey diggante nag capitaine Touré ak kii di Cheikh Yérim Seck aj tey ji ci àllarba bi juróom-ñetti fan ci wéeru mai nag mbir boobee nag nañ ci am dëgg kan mooy toog wala kun ci daal di addu Seydina Omar Touré ci kanamu tribunal correctionnel nag bu Ndakaaru Les Échos di ñu xamal rek ni ab fàttali moom ancien gendarme bi dañ koy toppee mi ngi toppee nag journaliste bi di Cheikh Yérim Seck ci wàllum diffamation ginnaaw ba nga xamante ne jot na ko consacré ci édition ci livre bi nga xamante ne euh, jotoon na ko fësal moom Cheikh Yérim Seck am benn pàcc boo xamante ne da cee wax ci mbirum dossier Ousmane Sonko ki nga xamante rek moo di Adji Sarr mbir moomee sax nag dafa daal di def ab victime jàpp rek ne capitaine Touré dafa feetu sës ndaxte la ko waroon defu ko Seydina nag Omar Touré jàpp rek ne wàllum diffamation la moo taxoon rek nag mu daal di euh, teg jàpp ne rek ne complot la boo xamante ne nguurum Sénégal moo ko teg ci kaw kii boobu desul benn yoon ci ginnaaw nag ndaxte buñ ci sukkandikoo ci loole plaignant bi di euh, kii di Euh, ki nga xamante mooy ancien nag euh, gendarme euh, jot na xam ne rek nii dinañ ko jox lu toll ci juróom fukki million ci suñu koppar jëm rek nag ci contrainte ak la ca may kon nag depuis avril 2024 ba tey nañu ah, ngay aj ci audience bi waaye tey ji nag daañu ko fësal wax nag ci passation de service bi nga xamante ni Pape Alé Niang daa ko amal nag ni ki tey ca boppu directeur général nag bu RTS mbir mi nag ma ngay tàmbali nag di dóor radio télévision sénégalaise bi di RTS nag fas yéene nag amal passation de service bis ni ki tey diggante taalaat euh, Racine Talla ak ki nga xam ne rek mooy Pape Alé Niang fas ko fa wutu jot nañ ko prévoir nag ci semaine bi waaye nag joxuwuñ ko date exactement ci noonu nag ñu ngi signaler rek ni journaliste bi jot na nag installé wu ci nouveau fonctionnement ci conseil d' administration ak installation la ca war ki talaata démb leneen ci ay xibaar bokk na nag ci directeur généraux yi nga xamante ne jot na leen euh, nominé euh, kii di Bassirou Diomaye Faye fal leen toll na ci ñaar fukk juróom-ñaar ñoom ba tey jii nag jotaguñu sax nag nekk nekk seeni post mu mel ni directeur généraux yi nag société nationale wala sax agence yu ñu daal di viré Bassirou Diomaye Faye nag def lu nu mel ñoom ba tey jii jotaguñu am nag poste te li ma ci jaaxal moo di ni ki tey ci àllarba bi sax Les Échos da cee waxtaane conséquence bi journal bi di ñu xamante ne directeur yi nga xamante ne ñoo war a dugg concerné ci lu nu mel ñoom ba tey jii defaguñu nag pas de danse ndax jotaguñu def passation de service jafe nag bokk nañ ci lu nemmeeku ci wàllum passation de service bi nu mu war a dafa daal ñàkk engouement bu xaw a doy waar wàllum xibaar da dina bokk rek nag ci xeex jële fi nag lu jëm ci wàllum ger ak lii di euh, corruption wàllum ger ak wàllum nag euh, lekk alal nit ñi of nag di kuréel buy saytu lu ñu mel gën nañ yokkaat ay jumtuwaay ngir xeex lu nu mel office national de lutte contre fraude ak wàllum corruption ñu gën ko xam ci gër jot na amaat beneen réforme bu bees bu ñu sukkandikoo ci loi 2024 bu juróom benn fan ak jàpp juróom ñeenti fan ci weeru février 2024 bu modifié loi 2012 28 décembre 2012 nag bu bootu at bi nga xamante ni ci la président Macky Sall daal di fi samp naka lii di of nag coppitu yees nag jot nañ koo nemeeku loolee sax nguur gu yees gi mu fi nekk moom moo ko fi tekk ngir rek xeex jële fi lu jëm ci wàllum fraude ak corruption buñ sukkandikoo nag ci juriste chercheur bi wala nekk enseignant di Salif Diop jot na rek jot a indi après réforme yees yi nga xamante ne teg nañ ko ngir gën a joxaat doole jox corruption jox nag of nag jumtuwaay yu mu soxla ngir ñu mën a teg loxo képp koo xamante ni wuyal wàllum corruption ñu wax nag ci cumul de fonction yi nga xamante ni njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye moom ak Ousmane Sonko yàgg nañ ko di ko xeex nag moom mi le sax nag Ousmane Sonko jot na démissionné ca mairie nag bu Ziguinchor moo di démissionné ki ci mujj moom it nag dina démissionné ci lu yàggatul dara ci poste bi nga xamante ni foofii lañ ko daal di fal noonee lañ ko daal di mën a waxee keneen koo xamante ne dañ ci wax rek jëm ci nouveau ni nag am na solo lool ñu jox ko kii di amadu Ba amadu Ba nag ñu ràññee ko woon lool mu jóge Ousmane Sonko bu nekk ci parti Pastef di ci xeex amadu Ba rôle bu am solo nag lañ ko fas yéene liggéey ci moom la liggéey sax nag ci présidentielle yi 2024 yi moom nag ñu ngi koy préparé mu am nag ab post bu takk boo xamante ne daal dina ko mérité ndaxte carrière politique lam ca liggéey jéggi na dayo buñ sukkandikoo nag ci xibaar yi rôle décisif la joué ci li tax nag ñu valider candidature Bassirou Diomaye Faye ca wetu conseil constitutionnel bari na sax donte jafe-jafe yu mu doon jànkonteel waaye terewut moom Amadou Ba mësul nag bàyyi benn yoon mi ngi coon assumer responsabilité bari na nag ci ay médias yoo xamante ne ñu ngi waxtaanee nag mu fekki waa assemblée nationale wala nag ku mel ni euh, biram Souleye Diop mi nga xam ne fa la nekkoon ak ministre pétrole énergie euh, moom est-ce que duñ ko jox place am mu nekk fa ndaxte Amadou Ba bi yelloo na poste sax bu weesu lu nu mel ndaxte xeex na lu ne ngir rek Bassirou Diomaye Faye ñu mun koo bind ci liste yi waaye tamit xeex tamit parti Pastef ngir rek ñu daal di am nag jamono ji 2023 dër na jeex jamono ji 2024 jamono ji nag ñu ngi xaarandi ak ban poste la ñuy jox kii di Amadou Ba wàllum xibaar ba tey rek Cheikh Tidiane Dieye moom dafa daal di démissionné ci poste vice président bu conseil départemental noonu la demee ginnaaw Maimouna Dieye ministre bu ñu dénk wàllum famille ak solidarité Birame Souleye ministre bu ñu dénk wàllum énergie pétrole ak mine waaye tamit jamono ji tuur la ci jëwriñ bu ñu dénk wàllum hydraulique assainissement bu moom jot na démissionné ci poste président vice-président bu conseil départemental décision la boo xamante ne daf koy permettre mu gën a concentré wu ci euh, post bu yes bi nga xamante ne daal dinañ ko jax ab fàttali nag premier ministre Ousmane Sonko jotoon na xam ne rek ci weer bi ñu nekk daanaka képp koo xam ne ab ministre nga ñu lal post ba nga yoroon nag di nga ko jébbal ñeneen ña fa nekk ndax moom mel li sax nag jot na def lu nu mel kon nag mu mel ni waa Pastef nag ñoom duñu nangu benn cumul de fonction ñu wax nag ci livre euh, bi nga xamante ne rek euh, génne nañ ko ci suite beauté démission ci chaîne YouTube Pape Alé Niang mi ngi bàyyi nag benn annonce bu takku directeur général bu RTS Pape Alé jot na xam ne rek ni dafay mettre fin diffusion lépp direct yi mu doon def ci chaîne YouTube bii di Dakar Matin ginnaaw nag ba mu jëlee fonction fale ca bopp RTS maanaam la mu doon def ci Dakar Matin di ci def ab ay direct loolu yëpp nag daf ko daal di dàkkal jot na nag jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne dañ ko doon déglu di ko seetaan jaarale ko ci intervention yi nga xamante ki démb nag la daal di fësal lu nu mel ci noonu nag moom Pape Alé Niang fas rek daal di wéyandi collaboration ñi nga xamante ne mi ngi ko doon amal ci wàllum liggéey ci chaîne YouTube am boobu mu yoroon waaye nag xam ne rek ne yéen liggéey dootu ko mënati def ndax jamono ji chargé buñ ko def doy na ko sëkk di directeur général nag bu RTS na ci noonu ma ngay xam ne rek ne prochain titre nag ouvrage maanaam livre bi nga xamante ni dina ko fësal tuddee ko nag affaire Sweet Beauté bu wutale Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr mu jàppale rek ne ab complot la bu ngurum Sénégal tegoon fi naka ne tamit Seydina Omar Touré sax nag jotoon na nekk ku ñu sacrifié ndaxte ci loolee moo taxoon ñu dàq ko ndaxte ba mu bañee na jëfee li nga xam ne nguurum Sénégal loolu la defoon Pape Alé Niang sax d'ailleurs mi ngi xam ne rek ci instruction juge Mamadou Seck yëkkati lu jëm ci contrôle judiciaire niki talaata bi jot na naka présider réunion bu njëkk fale ca conseil administration ca RTS